عودنا بينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى السلام عليكم بوكو Sénégal ñu في تي tey ci Fatick Euh, comme niñ koy faral diko ko ñu japp na nak euh, tay dafa am xew-xew bu mag bo xam dafa am fi ci biir euh, diwan bu Fatick ah niñ ko xamee ci wéru koor gu tedd gi lii di mouvement Fatick bu bees ñu gën ko xam ci FDB e kiko jité di monsieur Idrissa Ndiaye CT1 SNR la nek doon responsable politique bu mag biir Sénégal ñu ragné ko bu baax waye nak mu am ay jëf yu am solo lu jëm ci walu social mu koy def fi ci biir région bu Fatick de dimbale néew si di participer ci ci développement de ci région bu Le mouvement bi nag ah mouvement boo xamante day yëngatu ci lu ci nañu quartier Daru mi koy defee ci yeneen gox yi andi ay ndimbalam maanaam ay kit ci weeru koor gi du suukar du tàndarma du meew ceeb lépp mu ngi koy wër tey biir Fatick di ci dimbale doomu aadama yi kon Idrissa Ndiaye ñu ngi fi ci quartier Darou Salaam ak mouvement Fatick bu bees mu andi fi lu toll ci maanaam ci xaaju million ci xaalis jënd ko lépp ay denrées alimentaires ngir jàppale li nga xam ne tey mooy askan wi rawatina ndaw ñi nga xam ne tey dañu ànd ak moom nekk ci biir mouvement Fatick bu bees ñu jàpp ne it tey dafa méngoo ak bés bi nga xam ne ci la ki nga xam ne mooy coordinateur mooy amadu Ba président vous def euh, tourner à travers euh, le Sénégal di daggaan batu askan bi ngir gagner li nga xamné moy élection yi ah tay nak dafa wara ñew bir biir gis ngeen ko Idrissa Ndiaye responsable politique bu mag nek fi ci bir diwaan bu Fatick gis ngeen mobilisation bi mu def tay wa Fatick yëpp màbb nañu Sénégal yëpp màbb nañu and ak sen rak and ak sen frère sen collaborateur un homme digne un homme rond qui parle carré d'une très grande dimension d'écoute monsieur Idrissa Ndiaye kon nak nii la xewé mu def une forte mobilisation ngir accueillir ki nga xam ne tey monsieur Amadou di candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ni mu ko yàgg di defee fii ci biir région bu Fatick lépp lu jëm ci politique de développement tay feeñ na ci bir askan mi ndax gis ngeen tay ni ko askan population bu Fatick wuyo ci accueil bi nga xam tay mu ngi koy defal euh, le président Amadou Ba kon nag mbokk yi ni la fi demee ci bir diwaan bu Fatick kan la muy monsieur Idrissa Ndiaye CT1 bu SNR doon responsable politique mo doon andi tay ay don ay kit diko ko ci bir askan wi une forte mobilisation ngir jàppale ki nga xam moy monsieur Amadou Ba leader bu coalition Benno Bokk yakar